bu public béninois ndax gis nañ bi match bi jeexee ni ñu ovationné ki nga xamante ne moom mooy euh, Sadio Mané rek ma bàyyi la ak coach. waaw coach euh, la question euh, est toute simple ban jàngat ngay am si ñaari mi-temps yi ñu def parce que c'est deux mi-temps assez différentes. bon il faut que ñu ñu ñu ñu jàngat ni fi ñu toll ci compétition bi on est déjà qualifié même si c'est un match boo xam ni. bu fekkoon on était dos au mur je pense que ni ñu ko joué nii duñ ko joué noonu. Aliou était, était très clair dans son discours il avait dit que day def benn tonneau parce que moi moi ce qui me plaît le plus dans cette équipe mooy que Abdoulaye Seck qui était là convoqué tout le temps muy toog ci banc bi je pense que les derniers matchs du Sénégal mi ngi joué donc si on a Kalidou Koulibaly mu opté jël ko teg ko ci banc bi joué loo ko moi je pense que il pense à la relève mais la relève aussi ça va se faire progressivement et d'une façon intelligente on a joué une première période on a on a marqué un but euh, le but égalisateur personne ne voyait venir parce que nous n'avons pas été aussi ballottés par l'équipe béninoise quoi qu'on puisse dire on a bien attaqué on a peut-être été moins pimpant dans le dernier geste mais sur le plan défensif aussi il y a eu un bon comportement ici ajoute à cela que bon vous allez me dire que c'est les nations qui sont dans championnat yi dañoo dañoo jeex les joueurs. sont épuisés. fi ñu jógee. bokkul suñu joueur bokkut ak ay joueurs beneen fi ñu jógee suñu joueur pratiquement la majeure partie ils sont dans des championnats yu metti leneen li aussi mooy que buñ ko waxee buñ ko waxul on a deux matchs match boo xam ne buñ ñu dóoroon 1000 à 0 aussi qualifié nañ ba pare peut-être que on le joue par rapport ak le ranking mondial mais quoi on puisse dire. euh, <laughs> toujours aimerait jouer contre le Brésil mu yokk ci encore l'équipe avait des blessés il fallait gérer aussi l'effectif il y a déjà trois jours qui étaient blessés deux indisponibles ça veut dire que ces choix étaient encore limités je pense que euh, ce match-là match bi amuñu dara luñ ci wax on n'a pas perdu même si n'ont pas gagné ils n'ont pas perdu c'est plus c'est le Bénin qui avait moom moo gënoon na soxla gagné bu demee bay def entrée gratis cela veut dire que bëggoon na gën a mettre la pression sur nos joueurs mais ils ont su gérer ça euh, am na fa action yoo xam bon je ne veux même pas parler des arbitres mais il y a une action sur Ismaïla Sarr je pense que sur cette action c'est un penalty clair mais comme on l'a dit on a su quand même aller jouer ci benn atmosphère boo xam ni xaw na hostile tuuti vous parlez de du geste des Béninois ya a aussi Idrissa Gana Gueye qui a fait la veille. je pense que dem ci seen CHU bi. offrir leen du du du matériel ça aussi. waaw wax nga dëgg coach ñi ñi ñi ngi jéggalu ça aussi ce sont des des des choses yoo xam te ne ñu koy wax. di ko mhm. di ko di ko fësal. jëf ju rafet la bravo à bravo à la. Mhm. maintenant <laughs> attendons de voir comment l'équipe va se comporter contre le Brésil parce que ñun aussi comme il a dit Aliou l'a dit suñu mënee suñu bëggee natt suñu bopp suñu bëggee jauger suñu doole. Mhm. il faut ñu tase équipe mag yi. coach da nga bëgg a wax ne Brésil moo ëppoon je n'ai pas dit euh, bu ñu ko nee kaay nga joué ak benn ak kaa nga joué Brésil Brésil ngay dem fubal. alors Greg di nga ñëwaat ci beneen question ak coach mais da ngay dugal léegi la réaction de coach Aliou Cissé moom tam mu def diagnostic bi après nga continuer décryptage bi ak ak ak coach. waaw moom tout juste après la rencontre def na tey li nga xam moom mooy évaluation par rapport ak euh, déroulement match mais aussi lépp loo xam ne moo leen di xaar. aujourd'hui j'ai j'ai trouvé quand même euh, une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre dans l'ensemble, je crois que ce fut un très très bon match. De notre part, le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but euh, venu d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. Euh, à peine que je me repose, je vois déjà le but dans les, dans les, dans les cages. Quelle frappe magnifique. Ah, c'est le, le, football. Voilà. Féliciter euh, l'équipe du, du Bénin, les encourager pour qu'ils aillent se qualifier. Et nous, on, on, on, aurait aimé faire six points, euh, comment dirais-je encore, six matchs, six victoires. Ça ne sera pas le cas cette, euh, cette année. Donc, euh, il nous faudra faire du, du 5 sur 6. Donc, euh, aller préparer ce match de, à Kigali et, et, essayer de remporter les, les, points. Mais vraiment satisfait de, du contenu de mon, de mon équipe aujourd'hui. Vous jouez à Dakar ou à Kigali On ne sait pas, on verra bien. <laughs> Pour l'instant, je ne sais pas, mais je crois que c'est bien parti pour que ce soit à Kigali, parce que c'est eux qui nous avaient. Euh, donné la possibilité de les recevoir chez nous, on les a reçus. Donc, euh, comment des... La négociation entre les deux fédérations se maintenue Ça, j'en sais du tout Mais je sais seulement qu'on jouera à Kigali. Voilà. mu dellu siwaat ci gis-gisam décrypté match bi Greg Mobile ak coach. waaw damay ñëwaat Adja par rapport au choix parce que coach maa ngi dégg ci ay waxam ne am na paramètres yu bëri ñu war a mën a jël en compte. bi ci njëkk moom mooy euh, la chaleur laay njëkk a jël boo xoolee tey ces joueurs là ñax bi nekkoon ci ñoom da sentir carrément ne benn y la chaleur côté physique voyage bi tout ça ça joue donc tey bu demee tey au bout de cinq minutes de jeu nga xool ne suñu performance on plus day def certaines kii ni euh, certains efforts yi nga xam ne ñu ngi ko doon def euh, xëy na rythme match bi wàññeeku woon na à ce niveau là vu que dañu am un autre match à préparer dans trois jours est-ce qu'il ne tey beaucoup plus judicieux ñu xool yeneen choix yoo xam ne waroon nañ ko mën a def ne serait-ce que pour récupération mais aussi mais pour xool euh, yan yan yan taxawee la ñu waroon am par rapport ak fin match surtout que daa am benn statistique bu ñu topp moom mooy euh, la majeure partie des buts qu'on prend c'est toujours dans les 15 dernières minutes donc on débute bien on finit mal. dans les 15 exemple. depuis la Coupe d'Afrique des Nations le constat est là. mais au match aussi il faut voir que c'est les buts sont sont marqués de la première à la dernière donc nous on a, on a marqué la première période on a marqué presque à, à une minute de la fin. de la pense que ni nga mën a dugalee première minute de dernière minute noonu nga mën a encaisser de la première minute ba ci temps additionnel bi. je pense que toi-même tu l'as dit tu as parlé de de facteurs yoo xam ni de facteur exogènes yoo xam ni yow mënoo ko maîtriser la chaleur voyage bi il faut mu am aujourd'hui que sax yaa yaa. y a beaucoup d'améliorations par rapport ak organisation équipe nationale mhm. euh, voyage situñ ci situation yoo xam ni dañuy def ay escale ci ci aéroport yu bari je pense que loolu aussi ci expérience la ci lu yàgg dund la mais en regardant ce match si les Sénégalais ne sont pas satisfaits moo xam ni gars yi duñu neex a satisfaire parce que quoi qu'on puisse dire le Bénin était dans l'obligation même de gagner ce match pour poursuivre la compétition pour mën a espérer qualifier malheureusement pour eux aujourd'hui le Mozambique a gagné donc da leen di damer le pion et la dernière journée ce sera entre mais ima tey jii bu gagné woon démb bu gagné woon bu demee Mozambique dernière journée bu fa lijjantee match nul mooy qualifié donc les les les les Béninois étaient plus dans l'obligation de produire un grand match de gagner ce match comparé au Sénégal qui était déjà qualifié si on joue quatre matchs c'est le moment de de faire jouer surtout ñi nga xam dañuy ñëw di toog ci banc bi. alors coach man bugoon naa la revenir un peu parce que dafa mel ni loolu dafa difficile parce que gis nañ Maroc Tunisie ñoom ñëpp presque dañu am défaite parce que ñoom aussi am nañ seen qualification en poche au sortir de cette quatrième journée cette fois-ci coach ñëw promet turnover mu def turnover ñu gis ay jeunes yoo xamante ne cette fois-ci ñëw nañ nekk nekk nekk titulaire mu nekk benn peut-être. profondeur de banc bu ñu doon xaar ci l'équipe qui est championne aussi d'Afrique qui est très attendue euh, nan nga gisee ñooñu nga xamante ne ku ci mel ni Nicolas Jackson Ismail Jacob gisoon nañ ko déjà ci coupe du monde bi ces jeunes la ñu ñëw commencé bokk aussi ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy muul bi. mais mooy li ma la ni continuité bi mi ngi commencé di feeñ parce que tey jii Ismail Jacob quoi qu'on puisse dire il a fait un très bon championnat en Espagne il est si aujourd'hui tu l'amènes tu le mets sur le banc mën na ko freiner tuuti alors que il a un plateau une occasion de le, de le faire jouer mu démarrer encore que sax l'autre là Boulaye Dia qui jouait de euh, à ce poste est blessé je pense que c'était une occasion de le mettre à l'épreuve au-delà de de de, de mais mais il y a d'autres joueurs tey jii ay Pape Gueye match yu bari ay match partie eh, six ay match yu bari ils étaient mm-hmm. sur le banc mm-hmm. mais mais regardez à la fin avec la chaleur Aliou a essayé de gérer aussi tous ces facteurs def ay changements dugal ñooñu pour leur permettre aussi de rester compétitif. à 10 minutes de la fin Habib Diallo mais même si c'est une minute parce que un joueur il, il il est prêt même sur le banc il doit se dire qu'à tout moment damay dugg. moi je pense que. Euh, léegi mën nga changer équipe presque à mën naa 48 ou 49 pour cent parce que cinq changements la Aliou a fait changement changements hier. Babou. après ñu ñëw ci perspective bi. avec voilà coach man dama ñëw euh, dem ba Aliou dafa indi benn milieu bu bees sànq yaa ngi wax ci sa ci sa waxtaan mu di Pathé Ciss ak euh, Pape Gueye ak ki nga xamante ne moo di Krépin Diatta. est-ce que nga ne ñu si trois si ñetti ñooñu est-ce que mën na mën a chambre mën nañu jàpp ne seen prestation démb est-ce que war a mën a chambouler li nga xamante mooy milieu bi existé mooy avant. mais milieu titulaire bi. mais c'est comme ça que ça doit si on on convoque un joueur international mu ñëw xalaat ni day toog ci banc bi. que chaque séance d'entraînement un regroupement il doit fair douter pousser l'entraîneur à douter dans ses choix cest di dire que dañ ko war a indil ay jafe-jafe mais su fekkee dañ koy bàyyi toujours muy gëmm di jël. mais écoutez à un moment donné pour avoir un joueur local ici c'était un problème mais si on va jusqu'à prendre un joueur bu nekk muy jouer Soudan mais demain un joueur dina nekk fii un joueur local nañ ko jël je pense que il appartient à ces jeunes là à ces jeunes entre guillemets parce que ils jouent dans des clubs yoo xam ne ay morom seeni morom ñoo fay nekk il appartient à ces joueurs là de mettre la pression sur ceux qui sont supposés être des cadres mhm. ñi nga xam ne peut-être dañ leen bëgg a màggatloo alors moi je mets toujours entre guillemets ci màggat bi parce que mhm. mag mag dina am foo xam ne dina am comportement boo xam ne xale du ko du ko du ko xam mhm. dans la gestion de l'effort aussi par rapport ak expérience bi mais parlons plutôt d'ancienneté par rapport à à la discipline mais mooy ces joueurs sur Euh, à l'entraîneur il doit mettre la pression sur d'autres joueurs parce que place bi kenn moomu ko xëccoo la ku ko gën a mérité mhm. wane ko dans ton club wane ko à l'entraînement je pense que léegi si trois ñooñu am na koo xamante ne peut-être xaw na maanaam di mën na mën a mën a mën a chambouler hiérarchie si trois ñi nga xamante ñooy joué démb selon vous Aliou répondre à cette question <laughs> euh, euh, après le match face au Brésil mais en attendant sélectionneur Euh, rafet euh, rafetlu na taxawaayu ces jeunes parce que pour ñu motiver woon leen c'était pas c'était pas c'était facile mais ils ont toujours fait preuve de motivation dem ci ba jeex d'ailleurs la preuve première mi bi même deuxième mi-temps bi on a vu un Sénégal qui est vraiment très très très conquérant et loolu nee na da koy rassurer par rapport ak euh, titre bi nga xamante ne cette fois-ci l'objectif mooy conserver ce titre là.

une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, euh, en venant ici au Bénin, c'était important, comme vous le dites, de, de, donner du temps de jeu à certains garçons aujourd'hui qui devaient donner des réponses. Euh, je parle de Formos Mendy qui a, qui a, été très très très très bien, d'avoir recadré euh, Crétin Gata dans le milieu de terrain, des garçons comme Jackson qui ont été très intéressants devant, Sadio Mané Euh, très intéressant aussi. Donc euh, Ismaël Assar qui revenait, c'était important pour nous, si vous voulez, du temps, du temps de jeu à ces, garçons qui n'ont pas l'habitude d'être là. Et le groupe Sénégal s'étoffe davantage parce qu'aujourd'hui, les garçons qui ont ont montré de très bonnes choses. J'ai l'habitude de le dire, pour gagner une compétition, c'est pas 11 joueurs. Il faut développer, ouvrir son groupe sur au moins 15, 16, 17, 18 joueurs. On a que panoplie, si vous voulez, de joueurs capables d'être interchangeables. Et aujourd'hui, à travers ce match-là, c'est ce que je voulais voir. Je vois que de ce que nous avons déjà euh, depuis un bon bout de temps, il y a d'autres garçons qui vont s'y rajouter. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très belle euh, prestation. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire d'avoir un groupe compétitif. Et au sein de ce groupe-là, pouvoir avoir au moins deux équipes ou peut-être même trois équipes où des joueurs sont compétitifs quand on a besoin d'eux. C'était ça un petit peu la philosophie de cette, de cette rencontre. Très merci euh, beaucoup bu ko defee bu ko defee mu nekk les éclairages du sélectionneur national mooy sànq li nga doon wax dafa mel ne désormais ces jeunes là ñuy commencé di ko mettre la pression et on on espère que ça va ça ça va continuer ils vont lui donner des des des nuits blanches et c'est surtout bénéf pour pour pour cette équipe. mais mais boo xoolee par exemple un joueur comme Abdoulaye Seck moi je l'ai suivi depuis qu'il est qu'il était euh, à Mbour Petite Côte. Touré-Kunda la woon sax moment boobu c'était pas encore repris il a quitté. mais mm. avant jaar na Casa après la dem Casa Sport. Casa Sport d'accord. il est allé parce que temps yooyu coach moo nekkoon DTN. très bien mais Casa Sport. c'est des joueurs yoo xam ni yàgg na leen xam. yàgg na leen suivre et que peut-être dafa am comme li ma wax léegi yenn facteurs yi il y a yoo xam ne tey jii boo leen sélectionné indi leen teg leen ci banc bi mais ñu pourrir ce groupe. je pense que yooyu yëpp ay paramètres et c'est ce qui s'est de la coupe du monde 2018 c'est ce qui s'est loolu yëngal na groupe bu Sénégal bokk na ci li gën a rateloo mondial Sénégal en 2018 il, il a tiré les enseignements ah. il a tiré les enseignements ma ma Aliou quand je suis pas d'accord avec lui suñu gisante je lui dis lii ak lii d'accord mu ci c'est quelqu'un qui est très réceptif quand il est d'accord lui aussi il te dit qu'il est d'accord mais lenn moo am euh, entraîneur aussi dafa am foo xam ni moo fay yombal liggéey liggéey ak jour boo xam mu xam la moo gën a yomb ngay liggéey ak jour boo xam ni xamoo ko bon vous allez me dire si c'est deux jours yoo xam ni à valeur égal mais tu n'hésiteras pas pas à prendre mais Ablaye Seck aujourd'hui si on le voit dans du Sénégal. on est rassuré. mais on ne doit pas s'étonner parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dur. Mm-hmm. avant-hier rek maa ngi ci discuter un de ses coéquipiers bu mu nekkoon Casablanca Fane mu ni ma moom dafa gëmoon ni kii dina réussir woon parce que bu nit ñi musaan liggéey benn moom da ciy yokk leneen. donc il a longtemps été sélectionné il ne jouait pas maintenant dès qu'il commence à jouer ça dit que à l'absence de Kalidou d'après les deux prestations qu'il qu'il a eu à montrer on doit être rassuré mm-hmm. Abdou Diallo aussi ak ak ak mais c'est leur premier match hein? Mm-hmm. donc te normalement ça devrait rassurer parce que dama la dégg ngay wax Ablaye que li tax may dellu si waat Ablaye Seck mm-hmm. après Greg mi ngi ñëw Kalidou bi mu amee cumul de carton bi finale bi sénégalais yëpp amoon des maux de tête. effectivement bi matinal ba ñu bi ñu bi ñu jëlee fale ci final bi face euh, à à à l'Algérie euh, absence su Kalidou Koulibaly pesé na ci ci lu ci ci lu bëri. mais tout à fait ce qui dire que tey jii su fekkee am nga pièce de rechange boo xam ni bu duggee doo ñuy doo am ay frisson moo gën parfois ngay convoquer ay joueurs yoo xam ni bon ils viennent pour pour meubler la galerie dafay am parfois ay joueurs yoo xam ni. da ngay toll sa équipe benn moment boo xam ni da lay wóor ni say remplaçant la ñuy li feuille de match bi mais amoo exactement li nga soxla vous allez me dire que nous sommes en mais il des jeunes Aliou boo xoolee ni muy doxali mu jëm xam na. jëm mardi. Mhm. mardi ñu ngi si match bu bu bu am solo contre Brésil. Euh, euh, dina nekk beneen beneen niveau parce que sànq yaa ngi koy beneen du joué ak équipe bi nga xamante ni moo di Brésil. mais joué nañu Brésil yàggul war na mat ay ñetti at si ginnaaw mais peut boobu suñu joueur mën nañu jàpp ne suñu joueur ñu nekkoon les meilleurs joueurs presque championnat yu nekk Europe yëpp parce que bu xool Sadio Mané fi moo nekk bokk na ci ñi nga xam ne trois meilleurs joueurs du monde Sadio Mané boobu nekkoon Sadio boo xamante ne euh, presque moo doon colmaté brèche nga xamante ñoo am kon su match contre Brésil créé na ay occasion Euh, kii marqué ko Diédhiou voilà est-ce que dina am différence match est-ce que jàpp dina am différence mooy match bi ñu joué contre Brésil il y a trois trois ans de cela ak match bi nga xamante moom la war a joué mardi parce que suñu joueurs yi nga xamante gis nañ gën a teg suñu yaakaar yi niveau. xam nga dafa am loo xam ni kenn kenn mën na ko bañ a sóoraale dans la vie euh, Sadio bi muy signé Bayern tout le monde s'attendait que à ce que Bayern explose Europe. Mm-hmm. mais. blessure nit du ko du ko du ko du ko du ko créer Sadio a tey très courageux et il se blesse à euh, quand à de la coupe du monde une compétition majeure bu nga xam ne ku ci nekk bëgg nga ko jouer s'il n'était pas fort pour revenir du woon yomb maintenant adversaire bi aussi même fi tey rek maa ngi koy wax ay booy naa leen li ma xaw a métti ci footballu Sénégal mooy que par moment dafa am ay équipe yoo xam dañuy tànn adversaire dañuy tànn ay match équipe wala joueur wala équipe. yëpp tey jii je l'ai dit que jouer contre Brésil moo ma gënal jouer contre contre contre contre kii. parce que <laughs> di nga mën a natt sa doole j'ai vu la liste du Brésil j'ai vu la liste du Sénégal mais match bi amoon y a de cela trois ans bi def 1-1 mais beaucoup de joueurs sont revenus dans ce groupe. Mhm. et, et, et le groupe s'est bonifié c'est-à-dire am expérience les Kalidou Koulibaly yooyu joué Ligue des champions ñu joué nañ finale euh, Ligue des champions et et aussi expérience bi ñëw na xam nañ xam nañ le très très haut niveau aussi. Adja on a couru depuis longtemps. ah oui derrière ces trophées. parce qu'il faut pas oublier que. ces mhm. vécu. mais c'est normal que les Sénégalais soient encore plus exigeants parce que ku yàgg daw ci Coupe d'Afrique heure boo tegee sa loxo ñu ñu ko nangu ko. nga ñibbisi avec rancœur. mais les gens ont continué à travailler aujourd'hui on a amené la Coupe d'Afrique on a amené le beach soccer on a amené les u on a amené les U17. les CHAN. CHAN bi je pense que je pense que il y a une progression nette la question qui se pose maintenant comment faire pour rester là-bas. d'accord alors euh, Grégoire euh, ñu ñëw ci kii bi après nga ñëw ci euh, sa question aussi par rapport au groupe mais très rapidement ñu ñëw un peu. Euh, ci résultat yi euh, cinquième journée bi euh, par rapport ak groupe bu Sénégal bi ak classement bi moment bi après nga ñëw sa question. waaw ñu jàpp rek ne Adja le Sénégal moom mooy garder toujours la tête parce que un succès bi nga xam ne jot na ko am ci précédente rencontre yi nga xam moom la defoon tey waral na avec ce match nul là mu garder la tête de ce groupe L donc un but partout la jeexee tey Mozambique moom moo dem fekk Rwanda daan ko ñaari bal ci dara nag fait dans ce groupe au niveau du classement Sénégal moom mooy garder la tête. ba léegi ci ginnaawam nag au lieu ñu fay gis Bénin ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk waa Mozambique ñoom ñoo fay féete le Bénin troisième position lay jël Rwanda donc c'est terminé pour équipe bi nga xam ne tey moom tamit wane na de très belles choses mais ça n'a pas suffi donc ñu jàpp ne il y une finale entre tey le Mozambique ak ñi nga xam ñoom ñooy waa Bénin parce que lors de cette dernière journée il faudra donc au une victoire tey en terre li nga xam moom mooy gis la Coupe mooy li may wax rek le classement Sénégal moom moo jiite donc voilà avec euh, tey li nga xamante ne moom moo nekk euh, huit points je pense bien. treize treize points voilà moom moo féete ci ginnaaw benn Rwanda voilà donc euh, pour quatuor bi nga xam moom moo ñeel sa groupe L la. donc rien n'est encore joué par rapport ak deuxième place bi donc sixième et dernière journée la lépp di li ki ñuy xam. kan moom mooy ànd ak euh, Sénégal ci groupe L bi pour dem participer ci coupe euh, d'Afrique bi mais en naa on a posé la question au directeur technique national parce que léegi ñu dugg aussi ci match bi amical bi war a am bi face au Brésil dellu si na ci ambition bi Sénégal am pour gën a tabax benn équipe boo xamante ne cette fois yi dina mën a rivaliser avec les meilleurs waaw ginnaaw nag loolu Adja moom mooy fi rek jàngat bi nga xam ne jëlee nañ ko ci coupe du monde bi face aux grandes nations du football Sénégal am na tey un projet assez clair ñu déglu Mayacine Mar. ñu ngi fi fan yii yëpp donc depuis euh, quelques jours euh, di préparer ñaari match yoo xam ne am na importance contre Brésil euh, mu nekk jongante bu nga xam ne également aussi président fédération bi ak comité bi ak l' ensemble des techniciens en de la fédération. Euh, jël nañu initiative maintenant léegi di jouer ay match yu rëy yooyu quoi pour hisser d' abord niveau xale yi mais également aussi pour se mettre à niveau c' est important moo tax match boobu c' est important pour euh, pour le Sénégal jouer contre le Brésil joué nañoo ñoom yaa Singapour il y a quelques années on avait bu 1-1 match bu intéressant bu neex euh, c' est leen mais boo ci jegee également aussi am nañu perspective bu jouer ay yeneen match également aussi ak équipe yu mag. comme ñaan parce que déjà coach waxoon na ko en conférence de presse. waaw waaw waaw mais ñu ngi ci ñu ngi koy dox parce que je pense que fii ak septembre fii ak ñu dem kan bi am na am na ay match yu ñu dëgg yu ñu dëgg man pour jouer quand même fii sax ci stade euh, Abdoulaye Wade bi euh, ay équipe yu yu mag yoo xam ne vraiment d'envergure waaw ah, mu doon éclairage yu euh, Maya Silmar directeur technique national Greg ma bàyyi la peut-être ak coach wala wala wala Pathé moom aussi n'est-ce pas xam naa du ñàkk mu mu bugg aussi point de vue par rapport à ce débat du ñàkk mais man je vais m'intéresser à l'entrejeu du Sénégal Adja parce que turnover am na certes donc on se dit que quelque part peut-être Aliou il va pas revenir avec le même trio face au Brésil bon on va le dire comme ça parce que aussi xamuñu yan choix la bëgg a def mais tey. Euh, boo boo doon xool ak euh, un trio par exemple Kouyaté Gana Gueye Nampalys face au trio brésilien Casemiro Paqueta ak euh, les deux autres donc je me tey y beneen aspect boo xam ne dina déten donc vu tey la fin de saison compliquée bi nga xam ne joueurs am nañu ko ak pas assez temps bi nga xam ne jot nañu ko def est-ce que tey c'est un trident boo xam ne war na mën a tenir tey la barre face à des joueurs comme Casemiro Paqueta bi nga xam ne tey ñu ngi tey ci forme bu exceptionnelle rawatina les couloirs yi nga xam ne am nañu ko avec monsieur Rodrigo. bon parfois am na question yoo xam ne day xaw a difficile pour nga tontu ci parce que mhm. euh, ñi ngi dem lu ne mën na ci xew ba jusqu'au jusqu'à la dernière séance il peut changer benn jour bu mu prévoir ci benn poste bi ou non mais quel soit aussi euh, le trio ou le milieu de terrain brésilien on a des des joueurs qui sont là capables de rivaliser parce que ñoo bokk ci championnat yu ñu joué pratiquement donc le trio qui va démarrer avec quelle organisation il va jouer je pense que le plus important c'est c'est de rester dans le collectif et par rapport aux consignes qu'il va donner ñu jëm ko respecter surtout. mais comment contrer le Brésil justement? comment contrer le mais le Cameroun a gagné le Brésil hein. Mm-hmm. le Brésil. mais dans un autre contexte coach. <laughs> mais <laughs> comme vous êtes déjà qualifié. oui déjà. oui peut-être mën ngeen wax loolu. mais a, mais qui mais attention attention donc xam nga presque c'est la même chose ak match Sénégal ak Bénin bi. Bénin Sénégal. Bénin joué sa survie quoi. Bénin sa survie. mais mais mais ku du mën lañ nekk de. Mm-hmm. du monde lañ nekkoon tous les matchs sont importants mm-hmm. même qualifiés je pense que euh, keroog Brésil li mu wane wanewul woon lu xam ne mën na gagner Cameroun parce que les Camerounais étaient plus motivés tu me diras qu'ils avaient besoin d'une victoire certes mais li wéttuwar mooy comment contrecarrer les joueurs brésiliens mais on football tout se passe dans le terrain maintenant la euh, comment l'entraîneur va organiser son équipe bon là il est mieux placé que moi parce que il connaît ses il sait parce que boo xoolee boo xoolee Aliou ce qu'il a dit dans ce a bien travaillé sur le plan offensif l'équipe s'est bien comportée sur le plan défensif. d'accord mais man dama ñëw si président président dafa mel ni. lu muy Brésil dafa mooy équipe ba mu ko am. <laughs> non non dama xam ne si question après nga lii. président sànq nga wax ne mënuñu am équipe sans sans Sadio Mané ñu bari ñu mais ñu bari comme Adama ñu koy joxor bi ne ki xamante moo di Sadio Mané ba dafa commencé jël âge waratul jouer maanaam un match de quatre-vingt-dix minutes. te ñu mag ko ak ñeneen di joué. ay match Modric qui a disputé tout à l'heure final il faut que Sénégal aussi il faut que ñu bàyyi yenn débat yi quoi parce que Sadio je l'ai trouvé très bon hier très très bon. xam nga peut-être dugalul xam nga mais il a été très bon mais Sadio quand même. ñun de mënuñu am ku ko gën. boo xoolee qualité débat boobu sax rafet na. ñu ko yëkkati ci ay doomu Sénégal parce que c'est-à-dire ñun li ñuy wax moment bi ñoom ñi ngi ñuy suivre seeni yaay ñi ngi ñuy suivre. seeni papa ñi ngi ñuy suivre c'est-à-dire des fois ma ma man je me demande est-ce que yenn débat yi jar na ñu koy ñu koy ñu koy yëkkati pour des sénégalais yoo xamante ne moment bi ñu ngi jouer ils sont en activité te seen seen dëkk jaral leen lu nekk. ma ne. Sadio ñu ngi posé sur réseaux sociaux yi Sénégalais loolu du loolu du débat gis nga les clubs européens booy ñëw ils sont suffisamment outillés pour xam ndax yow ni nga performant wala doo performant loolu rek c'est assez indicateur par exemple Sadio bu nekkoon ay benn at a ko dese ki ñaari at Bayer di ko signaler trois ans xaw deux ans. Hmm. xam nga def na test médicaux yeeg yooyu. Hmm. c'est quelqu'un Sadio bon on sent que c'est c'est quelqu'un bon enfin je l'ai pas approché ko. mais parfois il est un peu émotionnel da koy sentir si lu mu jugee dafa metti koo xam ne voilà de justesse de perte ballon d'or qui est deuxième ñëw dans un dans un club boo xam ne c'est un autre environnement c'est une autre langue mm-hmm. xam nga tu te blesses alors que espoir bu mag la club bi amoon si yow tu rates la coupe du monde ah yow mosoo vivre li nga vivre mais quand une petite période ah, mu defaruwaat amaat automatique mais yéen été bon mm. et il sera très bon contre le Brésil incha allah et c'est tout le mal qu'on lui souhaite alors coach euh, deux questions laa la laa la laa lay poser très rapidement rek mais question réponse taf taf par rapport au travail que le sélectionneur est en train d'abattre parce que xam nga ñun latéraux yooyu dañ ci mos am problème mais léegi j'ai remarqué côté bi Abdallah mi ngi fa le jeune la Ismaël Jacob mi ngi fi Formose gis nañ ko démb il n'était pas mal avec le titulaire indiscutable ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, moom mooy Sabali xam aussi problème la woon cage yi moom léegi euh, mun nañu mun nañu mun nañu nelaw yaa Alfred yaa yaa même Mori bi nga xamante ne aussi ñu bëri ñi ngi koy ñi ngi koy xaar aussi coach am am am am ci moom conf confiance te ñu jëm ci li nga xamante ne moom mooy une une coupe d'Afrique parce que aussi nañu waxante dëgg bu ñu face expérience lay nekk bu baax ci ci équipe bi aussi bien ñu gagné ñu wala ou bien ñu ñu gagné mais construction boobu pour jëm ci la conservation du du titre continental. waaw comme ni ko waxee rek euh, jouer contre le Brésil quel que soit le résultat da nga ci gagné. Mm-hmm. parce que soo bëggee xam sa sa doole dëgg dëgg dëgg il faut nga dem frotter wu avec les. les meilleurs les on a vu le Sénégal jouer à la Coupe du Monde. poule bi ñu nekkoon déjà c'était pas une poule facile ñu génn on a on a on a rencontré certains certaines nations yoo xam ne c'est des nations de football bon c'est vrai malheureusement contre la l'Angleterre euh, on passe à côté du match mais li li wërtuwër mooy euh, bu fekkee dañu bëgg a yem ci ci roq bi fi rek di jouer ay par exemple yenn kii équipe yi di leen gagner euh, mën nañ gagner Coupe d'Afrique mais si on veut encore faire de très bonnes performances. mieux que le, le Maroc pourquoi mais écoutez le Euh, et pourtant Maroc Maroc presque démb bi ñu koy gagné y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans dans dans mm-hmm. Afrique du Sud moo gagné parce que Afrique du Sud qualifié woon na déjà mais daf ko recevoir je que je pense que le Maroc li mu li mu. dix dix euh, Maroc moom dix Afrique du Sud am neuf. déjà qualifié. Mm-hmm. mais Afrique du Sud du ko gagné daf koy raw léegi. Mm-hmm. je pense que tey jii euh, il ne faudrait pas que les gens soient. trop exigeant ci Sadio. Sadio c'est un vrai patriote. Mm-hmm. et l'entraîneur en tant que tel Aliou tey jii vu le nombre d'années yi mu def ak sélection bi il connaît ses joueurs. oui une équipe boo xamante ne qui n'a pas perdu. depuis presque huit ans hein, ci phase qualificative Coupe d'Afrique des Nations. ça performance. huit ans ah, c'est qui n'a pas perdu. ça c'est bien avant ça sax parce que boo xoolee pratiquement depuis Amara Traoré. Mhm. mais dañu doon ñëw surveiller les les les qualifications. mais <laughs> chaque fois que ñu ñëw ci compétition majeure bi. Mhm. coupe coupe d' coupe d' Afrique bi ñu ñibbisiwaat. Mhm. te gagné nañ ko. Ah vous avez vu Aliou il a parlé avec un journaliste ni ko on est champion d' Afrique. Ah c'était avec. Euh, Gomis. oui <laughs> tey jii il ne faudrait pas que les gens soient trop pressés. il y a une génération de jeunes footballeurs yu nekk ci club yu baax en Europe. Mhm. di taseeg ay ay moromu joueurs yi ay ñoom Neymar et cetera président tout à l'heure vous m'avez dit. Euh, sans l'équipe type du Brésil. sans l'équipe type du Brésil la sax <laughs> mais nous avons la Et, a vu le comportement de cette équipe. pourtant et pourtant aujourd'hui euh, ce que Sadio faisait mhm. et continue à faire sur le flanc gauche je mhm. que tey jii na ko ko nit ñi nangul Ismaël Sarr est en train de faire un bon mhm. travail sur le flanc donc ils vont jouer contre le Brésil sans complexe absolument quel que soit le trio qui sera mis en place tey yaa ngi nu joué tey ak HLM tey ngeen match ñu def li nga xamante moo di 0-0 ñàkkul ne lii maanaam Ligue 1 bi Ligue 2 bi est-ce que gisoo di am na amul benn wala ñaari jours yoo xamante ne. war nañu mën a leen dugal accéder maanaam ci maanaam ci équipe bi. ñu ñu tëj ci équipe A bi. Ah. très rapidement. Euh, je pense que ni ki war a mën a accéder ci équipe A bi Aliou rek moo xam. yoo xamuloo. non xaw parce que tey ji tey ji tey ji te rapidement. jour bu war a départ ESO. mi ngi débordé bu war a départ ESO. Mhm. man maa xam ak samay collaborateurs. d'accord je ne peux pas me mettre à la place de l'autre tey te ñu jox la cër boobu <laughs> parce que waxoon nga fii ci plateau bi. ne des fois kenn ngay gis ah. mu ñëw ne coach dafa tey tey tey lim classé dara baaxu ci te xamul yow li nga dund ak sa équipe. te day ñëw toog ci ci ci strade yi <laughs> di seetaan yore gerte ak ndox ndoxam bu sedd. <laughs> awa ah coach il a parlé Adja. waaw euh, ñu euh, justement sax man ci Habib Diallo boobu laa bëgg ñëw. parce que c' est boo xam ne il est super euh, performant tey en club. Habib Diallo peine toujours à avoir du temps en sélection pourtant tey il fait partie des meilleurs sénégalais qui évoluent en Europe qu' ce qui se passe pourquoi l' entraîneur fait pas confiance. soo ma ne woon pourquoi Aliou convoqué wu man parce que xam nga ni mënu ma ko amal njëriñ foofu je ne sais pas de défendre qui que ce soit. pourquoi mais, mais il a joué. mais même si même si joué woon trente secondes sax joué na. non mais non, non, il faut qu'on se la vérité. non attendez gis nga euh, soo xoolee Aimé Jacquet quand il a pris la France. le dernier match de UE France contre Hongrie Cantona Ginola mm-hmm. deux joueurs français qui avaient cartonné mm-hmm. en Angleterre à un moment donné les Anglais s'étaient dit que non Hakimi dafa bëgg a humilier les Anglais comment il peut mettre ces deux joueurs de côté bañ leen a boole ci sélection bi parce que contre la Hongrie et puis même avant ça il eu des comportements yoo xam ni le groupe était pourri. yow nan nga mën a amee corner dernière minute au lieu nga téye ko nga balancé ko mais les les Hongrois ils ont récupéré le ballon passe sur Kostotinov douille 1-0 dernière minute la France est éliminée quand Jacquet est venu il a dit non mon groupe il faut mu assainir ko. quelle soit la qualité du footballeur mais d'abord il faut que tu acceptes mais cette sélection nationale là. détails yu bëri amatu fa dootoo dégg ñu ni tel jour mi ngi boîte fa la fanaan hmm. dafay daan am hmm. mais léegi xam nga lan lañ xëccoo maa la ëpp lu ma dem umra pour les musulmans donc s'il apporte al ci Habib mais y a un autre match su dugal woon Habib Diallo su dugaloon Habib Diallo day teg Jacob ci biti d'autres vont dire que pourtant Jacob a fait un très bon championnat en Espagne mais président. non non c'est en fait c'est le faible temps de a un autre match à la quatre a un autre match en vue. pour contre Brésil. qui vous dit que na ko mën na ko titulariser qui du départ. ah septembre aussi Rwanda mi ngi ñëw. Rwanda mu ngi septembre loolu beneen wax la sax. Mhm. mais ñun on li nga xam moom la ñu gën a gis boobu ba tey ba ñu ne ñu ngi koy gis. Habib Habib si les revenus en équipe nationale demul coupe du mhm. parce que il a travaillé. moo ko permettre mu dellu si waat moo ko permettre mu si waat ah, ah, parce que demuloon ci coupe du monde dem na coupe d'Afrique mais demuloon coupe du monde mais y a un autre joueur mais ban raison la am pour ne pas le faire jouer pour bonne raison la am pour ne pas le faire jouer connaissant ses performances non c'est-à-dire que tey jii tu vas me dire que Nicolas Jackson n'a pas fait une bonne saison si absolument il a pa un Jackson moi je marque sur le cas Habib en quelque sorte mais non xam nga boo boo focaliser mais da ngay xool concurrence bi aussi ci attaque bi il joue avec un attaquant axial soit c'est Jackson soit c'est Habib. c'est le même profil en tout cas. ça peut ne pas être le profil. mais c'est pas le même avec vous bu doon Mbaye Diagne lañ moo wax. Mbaye Diagne vous dites. ma ne j'aurais été d'accord avec vous bu doon Mbaye Diagne. non non quelqu'un boo xam ne du génn surface mais Jackson Habib Diallo ce sont tous des attaquants qui participent au jeu qui décrochent euh, mais Jackson a a a autre chose par rapport à. Habib ah comme Habib am na am na loo xam ne Jackson amu ko. d'accord finisseur avec vous. d'accord alors. Euh, dans les appels de balle ci intervalle yi. dans les appels de balle ci intervalle mais par contre Jackson a plus le profil d'un attaquant fixateur. Voilà. alors le débat est, est très très intéressant mais waxtu bi jeex na xaabaabal nañ sax benn ñi ngi ñi ngi jéggalu si s'il te plaît si on peut avoir euh, le tableau rek très rapidement vingt deuxième journée bi parce que ñu ci euh, bañ a wax résultat ak classement penda nga proposé ko Grégoire rek très rapidement Euh, incha allah dimanche prochain di leen ñëw ci réaction Habib ak ak Cheikhou Kouyaté euh, Grégoire résultat tey vingt deuxième journée bi. Ah, jàppal na match nul la ja entre la Linguère bu Amara Traoré ak Stade de tey xam naa Amara du jaar kaay nice quoi <laughs> donc. <laughs> jaraaf Pikine la zéro victoire la génération foot sur Guédiawaye FC Casa Sport amit daan Teungueth FC. Jambar Snaps Excellence de Thiès donc Dakar Sacré-Cœur ak Sonacos ñoom ñoo koy tëj. donc le constat la mooy y' a beaucoup de buts tey euh, ci journée bi nga xam moom absolument ay euh, au niveau du classement Génération Foot euh, reste toujours leader. waaw bien sûr mën nañu jàpp jàppaloon noonu rek la Génération Foot ki continue bien sûr son parcours. Mm-hmm. tey bu ñu koy xayma. Euh, donc euh, c'est l'équipe qui se retrouve toujours en tête de ce classement bu ko weesoo nag jàppal ni euh, jàmbaar Casa Sport Guédiawaye ba ci jaraaf ñoom ñëpp ñu ngi tey di suivre li nga xamante ne ni moom mooy cette match donc la Linguère de Saint-Louis ñoom résultat contre performance la ñu def ko waral nag tey ji ñoom tamit def nañ beneen jéego donc il se retrouve tey jii ci li nga xamant ne ni aja moom mooy cette treizième place synonyme nag de relégation seen seen seen ginnaaw ñi nga xam ñoom ñooy Snaps ñoom ñoo fa Linguère de Saint-Louis. Mm -hmm. mais à quatre journées pratiquement à SNEIPS Excellence va se retrouver en en en Ligue 2 donc euh, fii la ñu koy ndarkepe en attendant mais li classement provisoire la mais changement bi du bëri en attendant demain match bi nga xamante ne moom mooy opposé Dakar Sacré-Cœur alors très rapidement coach ak kàddu bu mujj bi ce qui s'est passé ci week bi à Diourbel ça a heurté tout le moom ay match yoo xamante ne ak kàddu gu mujj gi. ay score fleuve 17 buts à 0 27 buts à 0 loolu kenn mësu ko gis euh, ak ak ak ak sa kàddu gu mujj surtout mu ñu mu touché ci une université loolu aussi doy na waa mu université de Bambey ak kàddu gu mujj je j'ai lu la correspondance de la Ligue de Diourbel. Mm-hmm. je pense que ils avaient pris toutes les dispositions. pour mm. que ces matchs là se déroulent normalement. il avait mm-hmm. un commissaire de match. il avait un délégué aussi. il y a quelqu'un même qui était chargé de, euh, de la commission d'éthique discipline je pense que du loo xam ne dafay dafay dafay dafa dafa ñaaw ci footballu Sénégal mm-hmm. mais attendons de voir la suite des événements parce que le football aussi am na ay règlement donc c'est sûr et certain qu'une enquête va être ouverte et des décisions vont être prises. waaw xanaa mais Adja mu wax tey Wakaam moo jël deuxième moo jël deuxième. mais bu ma ñu am ambition am. boo boole boole waale ko si si te plaît. aussi euh, euh, jàmbaar dafa gagné doon. Uh-huh. naa ni est-ce jàmbaar mos na gagné doon. Mm, mosu ko gagné. waaw tey 3-0 ko gagné. 3-0 ko dóor. oui. Wakaam 3 Wakaam Wakaam. ñaanal mu koy mu koy bon il reste encore 3 journées de toute façon. aujourd'hui on a fait match nul on a fait on a cherché à gagner. mais mhm. à un moment donné on a eu un joueur qui était on a rencontré une bonne équipe des HLM qui cherche aussi à à à, à se sauver à assurer son maintien je pense que y avait y avait beaucoup de fair play dans le dans le jeu euh, ñetti journée moo ci des. donc ñaanal ñu gagné ñetti match yooyu. amiin président kàddu gu mujj gi. waaw maa leen di remercier en tout cas si invitation bi comme d'habitude donc euh, pour revenir aussi si question bi parce que le président de la Ligue de Diourbel je pense que Abdoulaye Fall mhm. c'est c'est un collègue mhm. suma grand frère la je pense que moom affaire bi sax da ko choqué bind na je pense qu'il va ouvrir une enquête moom le connaissant du bàyyi mu jàll affaire bi waaw donc maa ngi koy nuyu au passage et di di leen remercier ci invitation bi et aussi par rapport au basket di wax ni élection yi mu ngi seen ginnaaw. il y a quatre ans yoo xam ne une fédération a est donc nañ fu leen parce que bi di xaar fu leen acteurs yi xaar na leen fa gis. Mhm. te ñu bàyyi coow yi. Mhm. xam nga coow yi nag souvent nag ñun ñooy coow mais fu ñuy kiiwee gars yi duñ ko gis fu ñuy yëngalee duñ ko gis. xam nga dañuy affaire dañuy on répond quoi donc euh, Babacar Ndiaye moo ne si bopp basket bi moom na fexe nu muy fédéré. Mm-hmm. voilà ñu jël intérêt jiital ko merci beaucoup président Grégoire kàddu gu mujj gi. waaw di wax Adja rek te du jàmm jàmm ko gën a. Mm-hmm. parce yaakaar naa ne ñun ñëpp loolu la ñu bëgg. donc ñu continuer di doxandoo rek comme ça bu ñu demee au niveau africain aussi voilà mu mën a feeñ foofu la yëf yi toll di yaakaar rek ni tamit on reviendra ici en tant que euh, des chroniqueurs très heureux d'avoir battu le Brésil enfin. eh incha allah bu ko faa Babou kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gi mooy fii coach jeexale rek di ko ñaanal wokkaam yéegaat parce que gars yi vraiment gars soxla nañ ko wax dëgg yàlla. non mais on a envie gis ambiance bi euh, supporter wakaam yi non mais franchement. Euh, la direction du club, c'est des jeunes. Et c'est le spécialiste des montées. Euh, la direction du club, c'est des jeunes. <laughs> Euh, xam nañ fi ñu jëm. Mhm. Et puis ils ont ils un président d'honneur qui mhm. est le maire de de Wakam, monsieur monsieur Abdelaziz Gueye. Mhm. Je pense que accompagnement bi rafet na trop. Li ci des kay mooy ngeen ñaanal rek ñu yéeg. Inch'Allah yàlla yàlla ngeen yéeg. Amiin. waaw yow gars yi rendez dimanche bi inch'Allah. merci beaucoup Babou merci Greg. merci beaucoup coach merci beaucoup président de votre disponibilité ça il nous sollicite de répondre favorablement grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés Penda ci réalisation bi Pape Diouf ci wàllu son bi toute la rédaction mention spéciale à Ibou Kouyaté à Djibi merci beaucoup ci li nga xamante ne moom mooy accompagnement bi merci beaucoup ci yéen ni ñuy envoyé message yëpp jot nañ ci Moustapha Diop l'ancien joueur mi ngi lay nuyu paate donc on vous Euh, dimanche prochain, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir.